Juste après le jingle avec la complicité de la régie. voilà merci beaucoup yéen dañ koy dooree ak le regard bi nga xamante ne Mame Baba Cissé la xëyee moom ambassadeur di secrétaire général bu ministère des affaires étrangères ak des sénégalais de l'extérieur moom nag war fa bàyyi ko moo tax mu yëkkati ay kàddu gërëm ak jaajëfal ak reconnaissance jëmale ko ci ñi mu doon liggéeyal addu tamit ci dossier ya nga xamante ne jot na ko fa abordé ak yooyee yëpp yéenekaay bi di Le Regard ñëw na tamit ci màggalu Poroxaan bi nga xamante ne premier ministre bi ma nga fa woon moom Amadou Amadou Ba euh, recevoir oon nañ ko fële ca soxna Bali Muntaxa Mbàkke soxna Aminata Touré mer dafa lank ne am na ñuy nañuy ruumandaat ndaje gu war a dox diggante président Macky Sall ak collectif des recalés moom nee na nañ ko ci kaccax ndax demu ca yeblew ca ndax fi ñu toon ni rek lañ teg seen gët mooy fexe ba président Macky Sall euh, ak ñi mu àndal bañ a gagné élection yi waaye tamit élection yi am sa date bañ ko àppee suñu gaynde yi def nañu jaloore ni kii démb daal di daan ñi nga xamante ne ñoo di Guinéen yi mi ndam loo xamante ne nag dafa dëggal ak seen taxawaay bi nga xam ne door nañ ko ba élection yi door ba kan euh, bi dooree ba léegi témoin yéenekaay dafa ñëw nag ci wàllum politique mën a recalé tey ci juróomi waxtu bu jotee président Macky Sall dina leen recevoir de la République publique mu ne loolee nag ay njuuj njaaj la wala ay manœuvre la ko tuddee yoo xamante ne ñu ngi koy def ngir daal di mën a door dàq élection présidentielle yi loolee témoin yéen a kaay moo ko xam ne ñëw tamit sunu gaynde yi nga xam ne dafa jàpp ne def nañu carton plein l'observateur yéenekaay dafa ñëwaat ci ndaje bi nga xamante ne président Macky Sall nas na ko amal ak ñi nga xamante ne ay recalé lañ leen tuddee mu ne loolee nag jur na ay jafe-jafe wala ay xiiro ŋaayoo ci diggante collectif boobe ndax am na ñoo xam ne dañoo lank ne duñ ca dem duñ ca yeble waaye tamit ñëw na ci fukk ak juróom candidat yi nga xamante ne ñoom lañ ne seen tur ma nga ca pale ba ba war nañ faa dem daje ji ak président Macky sàll waaye soxna Mimi Touré moom nee na demul yeblewul l'observateur yéen a kaay ñëw na tamit ci tàggat yaram ak match démb bi Iliman Ndiaye mi dugal ñaareelu bit bi l'enquête yéenekaay mu ne recalé yaa ngay dem palais nag noonu la ko tuddee ne na recalé yi ñu ngay daras daras yi jëmale palais de la république nee na président de la Macky dina leen recevoir ni kii tey jii soxna Aminata Touré nee na demut nee na nag euh, ban traitement la ñu war a amal ci lu jëm ci wàllum report bi du ñàkk danañ ci xam dara ndax bëri ñu koy junju ne loole la ñu fay waxtaanee. les échos yéen kaay loolu la waxee tamit maanaam ndaje bi bëri na ñoo xam ne moom la ñu xëyee tey jii mu ne moom 18h nag la wax ne 18h le président Macky Sall di leen recevoir délégation fukk ak juróomi nit ñoo koy ñoo koy composé bokk na ci Cheikh Bamba Dièye ak docteur Cheikh Tidiane Gadio nee na ñooñe moom danañ dem waaye am na ñoo xam ne duñu dem ko ci mel ni Bougane Gueye Dany docteur Abdourahmane Diouf. Abdou Bara Mbacké Dolly ñooñu ñëpp du ñu dem Aminata moom nee nañ dafa faf sax créé malaise ci biir groupe tribune yéenekaay yi dafa ñëw ak ñun ci li nga xamante ne moo di opposition bi mu ne nag jamono ji li ko war mooy dajale ay dooleem dafu say su ko defee ñu mën fee jëlee président Macky Sall collectif des recalés nee nañ nag lànk nañ ne kenn du dax scrutin bi dinañ sëgg bëre le 25 février incha allah le point actu nee na joma yi dafa war a am liberté provisoire ba bisu procès nee na loole nag ki ko xam le mooy maître Abdoulaye Tine euh, nee na nag euh, moom moo jiite parti bi di union socialiste libérale union sociale libérale autant pour moi nee na Diomaye dafa war a am euh, liberté provisoire fii ba ba ñuy euh, ubbi procès nee na su fekkente ne président bi dañ koo fal euh, dañ koo tab nouvellement élu mu am empêchement munul jiite munul prêter serment nee na loolee nag absence lañ koy noté day demee dafa dafa nekk vacances daal loolee nag vacances du pouvoir lañ koy tuddee su ko defee candidat élu bi su nekkul en mesure exercer fonction mag yu ni mel situation bi dafay daal di am lu mu dégtal mooy président assemblée nationale mooy ñëw jiite kon Amadou Mame Diop mooy jiite suñu dikko suñu sukkandikoo si maître Abdoulaye Tine noone la ko waxee. yoor yoor yéene kaay nee na acte deux baa ngi nii ci mer jaay yi nga xamante ne ñoom dañuy déstabiliser. camp wu Sonko nee na fi ñu toll nag jogaat nañu amaat nañu xëy ñu ngi wër di wax di sos ak yu nekk ñu dugg si euh, pour rek daal di yàq der waaye tamit yàq xel ñi nga xam ne dañuy jàppal tànk Ousmane Sonko. le quotidien yéen kaay yi nee na gaynde yi ñoom ñooy buuru Yamoussoukro waaw ndax Yamoussoukro jig na leen loolu ñett ñañ fa daje lépp dañ leen daan euh, dalee ko ca Gambie teg ci Cameroun daal di mujjee démb ak Guinée. mu ne première fois ci histoire du Sénégal ñu dem Coupe d'Afrique am 9 points maanaam 3 sur Aliou Cissé nee football sénégalais nag mi ngi def ay jéego yu am solo mu ngay avancé bu baax a baax tey nag la gaynde yi war a xam kan la ñuy dajal ci huitième de finale yooyu ñu ma dëgmal Sud Quotidien tamit foofee la xëy mu ne carton plein moom la xale yi def maanaam neuf yi ñu leen laajaan neuf yëpp la ñu indi di gulet di loo xamante ne sax tamit ñoom dong ñoo ko def ci kaan bi ñu nekk ni eh, jamono ji yeneen équipe yëpp amul kenn ku ci am 9 points Aliou bu coach bu Sénégal nee na kontaan na bu baax a baax ci gone mi euh, ci football bu am solo bi nga xamante ne def na ko Algérie moom dafa nërmelu dem ba Mauritanie moo fa jaar di euh, dugg histoire nag di loo xam ne gulet la moo koy am waaye tamit euh, Cameroun moom dafa am chance ndax démb dafa mucc Gambien yi xaw nañ leen a sonal ba xaw tuut rek ñu xañ leen seen qualification. stade yéenekaay la ñuy dem mu ne gaynde yi ñoom ñooy buuru yama Yamoussoukro loolu la stade wax sunu làmb yéenekaay la ñuy dem moom ci làmb ji la ñëwee mu teg ab jàngat mu ne ñett ñi tuddee seen bopp yu Ndour ñan lañ daal ñuy xamale ñoom ñett ñëpp seen i jaar-jaar ak seen i e, taxawaay ci làmb ji record yéenekaay la ñuy daanelee mu ne gaynde yi nag matal nañ ko ñett sur ñett waaw trois points la ñu am ku ñu dajal rek daal di jël trois points yi dem Aliou si ne kontaan na bu baax a baax si gaynde yi Kaba Diawara nekkoon entraîneur. E, Guinée moom nee na Sénégal daf leen naa dominer et mi ngi leen di jaajëfal di leen féliciter. merci beaucoup euh, Moustapha Mbaye am na solo information yi nga xam.